mais boo xoolee par exemple un joueur comme Abdoulaye Seck moi je l'ai suivi depuis qu'il est qu'il était euh, à Mbour Petite Côte tureeku laa loon sax moment boobu c'était pas encore Mbour Petite il a quitté. mais avant jaar na Casa Sport. après la dem Casa Sport. Casa Sport d'accord. il est allé parce que temps nekkoon DTN. très bien mais Casa Sport. c'est des joueurs yoo xam ni yàgg na leen xam. yàgg na leen suivre et que peut dafa am comme li ma wax léegi yenn facteurs yi il y a yoo xam ne tey jii boo leen sélectionné indi leen teg leen ci bi mais ñu pourrir ce groupe mais je pense que yooyu yëpp ay paramètres la et c'est ce qui la coupe du monde 2018 c'est ce qui s'est passé loolu yëngal na groupe bu Sénégal. bokk na ci li gën a rateloo mondialu Sénégal en 2018. il il a tiré les enseignements. waaw il a tiré les enseignements ma ma Aliou quand je suis pas d'accord avec lui suñu gisante je lui dis lii ak lii d'accord mu quand il est d'accord lui aussi il te dit qu'il est d'accord mais lenn moo am euh, entraîneur aussi dafa am foo xam ni moo fa yombal liggéey liggéey ak joueur boo xam mu xam la moo gën a yomb ngay liggéey jour boo xam ni xamoo ko bon vous allez ma dire si c'est deux joueurs yoo xam ni à valeur égale mais tu n'hésiteras pas pas à prendre mais Ablaye Seck aujourd'hui si on le voit dans l'axe du Sénégal on mais on doit pas s'étonner parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dur mm-hmm. avant rek maa ngi ci discuter ak un de ses coéquipiers bu mu nekkoon Casbor Fane mu ni ma moom dafa gëmoon ni kii dina réussir ci football parce que bu nit ñi musaan liggéey benn moom da ciy yokk leneen donc il a longtemps été sélectionné il ne jouait pas maintenant dès qu'il commence à jouer c'est-à-dire que à l'absence de Kalidou d'après les deux prestations qu'il qu'il a eu à montrer on doit être rassuré. Mm-hmm. aussi ak ak ak Seck mais c'est leur premier match donc te normalement ça devrait rassurer parce que dama a dégg ngay wax Ablaye Seck parce que li tax may dellu soit Ablaye Seck après Greg mu ngi ñëw Kalidou bi mu amee cumule de carton bi final bi sénégalais yëpp amoon des maux de tête. effectivement bi matinal ba ñuy bi ñu bi ñu jëlee fale ci final bi face euh, à à à à, à l'Algérie. Euh, absence su Kalidou na ci ci lu ci ci lu bëri. mais tout à fait ce qui dire que tey jii su fekkee am nga pièce de rechange boo xam ni. bu duggee doo ñëw doo doo am ay frisson moo gën parfois ngay convoquer ay joueurs yoo xam ni bon ils viennent pour pour meubler la galerie dafay am parfois ay joueurs yoo xam ni da ngay sa équipe benn moment boo xam ni da lay wóor ni say dañuy fecc li feuille de match bi mais amoo exactement li nga soxla vous allez me dire que nous sommes en nationale mais il des jeunes Aliou boo xoolee ni muy doxalee nii. fi mu jëm xam na ko